yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàng mi ak juróom benn yàlla tànn na musa nanu baamtu nettali yi weesu benn naka la yàlla matale li mu digoon Ibrahima. yàlla waxoon na Ibrahima ne ay sëtam dinañu dem ci meneen réew te loolu am na. ñaar lu tax barkeelu yàlla wàcc ci Yankoba te wàccul ci Esawu. ndaxte esawu fonkul woon barkeelu yàlla ñett lu tax yàlla bay ñu yóbbu yusufa misra ndaxte yàlla bëggoon na dimbali waa israyil bu xiif ñëwee ci seen réew ñent naka lañuy xamee ci nettali yusufa ne yàlla mooy borom doole yàlla bàyyiwul magi yusufa ñu rey ko yàlla yóbbu na yanqoba ak waa këram yépp ci misra ndaxte loola la tëraloon yàlla may na yusufa xam-xamu tekkil firawna ay géntam noonu firawna def yusufa mu yilif waa misra looloo tax mu yilifoon itam kër baayam ba ñu toxusee misra mbind mu sell mi nee na ci gàddaay gi saar ñett aaya benn ba aaya juróom-ñaar ak aaya fukk bi loolu wéyee musa di sàmm jur gu gàtt gu goroom yetro sëriñu majan musa nag yóbbu jur ga ca gannaaw manding ma ca oreb tund yàlla wa foofa malaakam aji sax ji feeñu ko ci tàkku-tàkku safara ci biir as ngarab musa gis ne ngarab saa ngi tàkk waaye lakkul noonu mu ne teema jàdd seetlu keemaan gi lu waral ngarab si lakkul bi aji sax ji gisee ne mi ngi jàdd ngir seet mu wooye ko ca digg garab sa ne ko musa musa mu wuyu naam noonu yàlla ne ko bul jegeñ si sumil say dàll ndaxte bërëb bii nga taxaw suuf su sell la mu teg ca ne maay sa yàllay baay di yàllay ibrahima yàllay isaaxa ak yàllay yanqoba musa nag nëbb xar kanamam ndax ragal a xool yàlla te aji sax ji ne ko ci lu bir gis naa na ji sama mbooloo di daj misra dégg naa it seen yuux ndax jaraaf yi leen di jeñ ci liggéey te ñewanti naa leen ndax seeni coono kon nag kaay ma ca firawna ngir nga génnee misra bani Israël sama mbooloo bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla tànn na Musa nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla tànnee Musa waa Israël maanaam sëti Ibrahima dar giir loor ci Misra at yu bare jàll Yuusufa ak ay magam ak rakkam faatu nañu bu yàgg seen Firawna ba dee ba beneen Firawna falu waaye moom amul woon yërmande ci waa Israël yi ndaxte xamul woon kan mooy Yusufa Firawna bu bees bi ragal waa Israël ndaxte ñu ngi doon gën di yokku mu xalaat ne mën nañu song waa Misra te daan leen noonu firawna bi jàpp leen def leen jaam di leen liggéeyloo liggéey bu metti ngir ñu dee yàlla gis seen coono te dégg seeni jooy waaye liggéey bi reyu leen yàlla barkeel leen te def leen ñu yokku firawna santaane ne képp ku juddu ci waa israel di góor ñu sànni ko ca dex ga ci jamono jooju la musaa juddu ay waajuram nëbb ko ñu dem ba mënatuñu ko nëbb ñu dugal ko ci ab pañe teg pañe ba ca wetu dex ga doomu Firawna ju jigéen dem ca dex ga ngir sangu mu gis liir bi liir bi sopplu lool mu xalaat jël ko yar ko doomu Firawna wax ne na ko kenn ci jigéeni Israyil nàmpal jenn jigéenu Israyil ne mën na toppatoo xale bi yor ko këram ba mu fer doomu firawna xamul woon ne jigéen ji moo yaayu xale bi gannaaw bi musa feree mu dëkki kër firawna mu doon ko am maanaa ci nguur gi bi musa amee ñeent fukki at mu dem fa ay mbokkam dëkke maanaam waa israel ya mu gis leen ñuy liggéey liggéey bu metti mu gis kenn ci waa misra di dóor jenn waa israyil musa xool ba xam ne kenn gisu ko noonu mu rey waa misra ba ba noppi suul ko ngir kenn bañ a gis néew bi musa ragal Firawna dégg li xew noonu mu daw dem làqu ci manding ma ñuy woowee majan mu nekk fa ñeent fukki at mu am bés musa di sàmm ci àll bi mu gis as ngarab suy tàkk te lakkul musaa ñëw ci wetu ngarab si yàlla wax ko sumil say dàll ndaxte fi nga taxaw fu sel la mu ne ko moom mooy yàllay baayam di yàllay ibrahima ak isaaxa ak yanqooba gannaaw gi yàlla wax musa naka lay jële waa israel ci buumu njaam yàlla wax musa mu dem ci firawna te wax ko ne yàlla bëgg na mu bay waa Israël. yàlla wax Musa itam ne firawna du ko déglu ci saasi waaye yàlla dina ko may kàttanu def ay kéemaan ngir firawna xam ne yàlla moo yónni Musa. noonu waa misra ak waa àddina yépp dinañu xam bu baax ne yàlla kenn la te amul moroom bi Musa xamee li yàlla bëgg mu tiit noonu yàlla laaj ko loo yor musa tontu ko aw yet yàlla wax musa mu sànni ko ci suuf musa sànni yet bi ci suuf yet bi soppiku jaan musa daldi tiit daldi daw noonu yàlla wax ko mu jàpp jaan ji ci gen gi bi ko musa defee jaan ji soppiku waat aw yet yàlla fàttali Musaa ne moom mooy borom doole te moo yilif lépp yàlla ne ko dina ko dimbali yàlla bàyyi itam Musaa mu ànd ak Aarona magam bu góor ngir mu dimbali ko ci wax ak Firawna waa Israël nekk nañu jaam ñeenti téeméer at waaye yàlla fàttewul li mu digoon Ibrahima dig ko Isaaxa dig ko Yanqooba moo tax yàlla yónni Musaa ngir mu génne waa Israël misra yàlla musal na Musa ngir mu dog buumu jaamu waa Israël te génne leen misra yóbbu leen kanaan ni ko yàlla dige woon Ibrahima fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax yàlla bëgg a jëlee waa Israël ci njaam bi ñu nekkee ci misra ndaxte yàlla gis na seen metit te dégg na seeni jooy ndaxte yàlla bëgg na leen te fas na leen yéene won cofeelam ak yërmandeem ndaxte yàlla digoon na Ibrahima ne dina am askan wu yaa digga won na it ne musalkat bi dina bokk ci askan woowu ñaar naka la yàlla musalee Musa ba deewul bi mu nekkee xale yaayam dafa ko dugal ci pañe teg ko ci wetu dex gi doomu firawna bu jigéen gis ko jël ko ñett lu tax musaa dawee misra ndaxte dafa reyoon ab waa misra bu dooroon jenn waa israel dafa ragaloon firaw na rey ñent ndax li musa def bàkkaar la waaw juróom lu tax ngarab si musa gis doon tàkk te lakkul garab si lakkul ndaxte yàlla aji doole ji mu ngi woon ci biir ñax mi. juróom benn lan la yàlla sant Musa mu def ko. yàlla sant na Musa mu génne waa Israyil Misra. juróom lu tax yàlla wax Musa mu sànni yatam yàlla bëggoon na Musa xam ne moom mooy aji kàttan ji te moo yilif lépp juróom-ñett ndax yàlla xalaatoon na ne Firawna dina bàyyi waa Israël bu ko Musa waxee ne yàlla moo ko wax déedéet yàlla xam na lépp kon xamoon na ne Firawna du bàyyi waa Israël ba keraa loola war a am juróom-ñeent kan la yàlla yebal mu ànd ak Musa ci Firawna Aarona magu Musa la yebal fukk ndax yàlla fàtte na li mu digee bi waa Israël nekkee Misra. déedéet yan melukaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka la ñu feeñee ci nettali bi. yàlla lu mu digee def ko. yàlla may na Ibrahima sët yu bare yàlla xam na lépp yàlla xamoon na ne waa Israël dinañu nekk jaam ci misra yàlla mooy boroom doole firawna metital na waa Israël waaye yàlla may na leen doom yu bare yàlla aar na Musa ba reyuñu ko yàlla tàkkal na as ngarab te ngarab si lakkul yàlla soppi na yet mu doon jaan gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla gis na coono waa Israël te dégg na seeni jooy yàlla sant na Musa mu jële waa Israël ci buumu njaam dinañu waxtaan ci ni yàlla musalee waa Israël ca bésub jéggi ba